asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences dañu dis faatoon rek jéem euh, fàttali le vingt huit février nga xam ne bis la boo xam ne bisu jiyaat la le vingt huit bii février bis la boo xam ne ci la ñuy delsi ci l'islam le vingt huit février bis la boo xam ne ci la alxuraan ak sunna di jëlaat palaasam ci senegaal le vingt huit février nga xam ne ci la ñuy atte Imam Ndaw muy bis boo xam ne kullu ku dib sénégalais ba ci chrétien ak ku mën a doon ku ne bis la boo xam ne bisa buru ko manqué bisub jiyaat la bisub moom sa bopp la bisub libéré sa oskan la ba tax na foo ab Sénégal nekk fu ab Sénégal nekk ñu ngi lay ñaan nga taxaw ci tribunal bi taxaw ci tribunal bi day tax nga mën a taxaw bañ lii ñu lay sant dëppoowul ak diine taxaw ci tribunal bi day wane sag lànk ci nii ñu yore réew mi taxaw ci tribunal bi day wone taxaw gi nga taxaw te lislaam tax taxaw gi nga taxaw ci tribunal bi day li jox freedom indépendance souveraineté ak say liberté bis la boo xam ne ku ko def sa bopp nga ko defal d'abord defal ko l'islam defal ko la nation sénégalaise defal ko kull koo xam ne rek ci réew mi ngay yeewoo Imam Ndao jotaw la kenn dara imaam ndaw xamul sax luy terrorisme dama lii imam di ko def moo gën a garaaw lii imaam di ko def ci la mari jaar tey ba moom boppam lii imaam di ko def àddina bépp ci an lii imaam di ko def sagub lislaam la sagub mali la sagub kull koo xam ne doomu aada nga dañ ci ak jub euh, imaam Ndaw euh, avisal quran la alquran képp la xam-xamul leneen bañ na ko ba jël alquran def ko métier maanaam di ci jàngal ay gone ba macha allah xale yi jot a jàngal ñi ci mokkal bari nañu ku mel noonu wërta yendu fudul ca daaraam ku mel noonu dama ne yenn coono yi àttanu ko ba tax na ñun waa Sénégal buñ bàyyi Macky sàll teg ko ko ngir terrorisme boo xam ne moom lay jaay ci àdduna bi dama ne yàlla dana mu mere al jaaru nafs saa yu bari tudd nañ ko kon jóg ngir yàlla kenn jóg am lu ñuy bañ la défense est noble la défense est une cause primordiale toutes les sociétés du monde nangoon nañ ko nit boo ko jàppee genn coono gi di ko teg te jot na mu jóg aar boppam te foofu lañ toll l'Occident la popularité de l'islam fait peur la popularité l'islam menace moo tax amatuñ jàmm alal ji nekk Afrique surtout araj yi nekk dans la vallée du Nil la li nekk ci la Sahara yi saara occidental alal jooju moo yóbbu fiti tubaab yi ba xamatul li ñuy def lu bëgg songu Afrique pour lan foqar ci alal jooju ci ñoom le nouvel ordre mondial coow yi ngay dégg yépp yépp moom la moo tax ñu dellu di sant yàlla ba de la Russie jóge ànd ak jullit yi nga xam ne ñoo nekk Russie gëstuwaat àdduna bi seetaat àdduna bi xam fi àdduna bi jëm la Russie tàllal loxoom le monde islamique ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax waaye bis bii bis bii dama ne bu kenn manqué le vingt huit le vingt huit février yéete leen ànd leen dem leen lii du mbiri parti politique mais mbir défendre ay cause primordiale la ba tax na kan bokk jog ñëpp kon man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience le vingt huit le vingt huit le vingt huit février bu ko kenn manqué imam Ndao imam Ndao free imam Ndao